Sénégal àdduna wërngal képp seen émission sorti tey jëlee soxna ndey Fatou Ndiaye di ci dalal Louis Gomis bu ñu bëggoon a xam Louis Gomis mooy kan ci lu gën a yaa ana lan ngay tontu. Louis laa tudd sant Gomis juddoo Caaroy guy Fatou Maga koñ bu ñuy wax Arlem màggee yëmbal noor am 45 ans. Louis Gomis ana lan moo di ay jaar-jaaram wàllu jàngam lu ci aju. sama jaar-jaar euh, jàng naa école. bàyyee troisième secondaire euh, jóge foofu nag di daan sama doole pour dimbali samay parents waaw rien que pour dimbali samay parents moo tax ma teel a bàyyi jàng. loolu dëgg la maa ngi doon jiite benn collectif euh, bu ñuy wax le collectif pour la lutte les inondations et pour l' émergence de Yeumbeul Nord muy collectif bi gënoon a rëy bokk na ci collectif yi gënoon a rëy ci banlieue bi polarisé woon 54 quartiers yi inondé woon ci Yeumbeul noor ba ma ci jógee tamit jiite naa fi tamit ay mouvement yu bari bi ci mujj mooy ati ànd taxawu yëmbal loolu yëpp ci cadre suqali sama gox suqali sama gox bañ ku noot tamit doomu banlieusard bi ñun daal ci loolu ñuy taxaw man loolu mooy sama credo parce que banlieue mooy sama Las Palmas yëmbal mooy sama Washington ma lu ma am yëmbal la. Louis Gomis borom soxna la wala boroomi soxna. yàlla defoon te ma amoon soxna tàggoog ñoom gënalul kenn nag. mais nekk aussi euh, ñu ngi koy le destin yàlla lu mu tudd rek loolu lay def ci jàmm bi lu ko soob tamit moom lay def ci jàmm bi. say valeur. samay valeur benn bi ci ëpp mooy bañkat laa waaw bëgg naa sama bopp bëgguma tamit ku ma noot bëgguma ko noot doomu euh, lu ma jege waaw bëgguma ko noot tamit doomu aadama dëgër naa sama valeur euh, mooy li ma wax sànq rek maanaam daal. dëgër naa bopp aussi. say conviction Louis Gomis. sama conviction am sama conviction daal mooy bëgg naa toujours lépp lu ma dugg rek am ci ndam defet moom bëgguma ko waaw defet moom lu ma su ma ko amee rek dinaa jooy moom ñu ma xam-xam na loolu ci man moo tax ma lépp lu ma dugg rek dama ci bëgg am ndam waaw ci loolu laay taxaw ba léegi nag moom. ana lan moo la gën a metti guddi yile ci réewum Sénégal. waaw li ma métti ci réew mi bari na. mooy jafe-jafe askan bi maanaam pauvreté bi wax dëgg yàlla métti na trop ci askan bi ñi ci kaw nañu yërëm ñi ci suuf ñi ci kaw nañu yërëm nañu bàyyi xel ñi ci suuf ndax fa ñu ne tey jii ñooñu leen fi baax ñooñu leen fi teg te bu ñu fayee koo tamit ci baadoole bi tamit contribuer na ci participer na ci ko waaw moo tax toujours nañu leen di bàyyi xel. xeetu ñam yi am maanaam plat yi ana ban nga ci gën a bëgg Louis Gomis. aw moom bañ nag ci lekk waaye nag lekk bi ma gën bi mu gën a bëgg moom si dee ci la ma cosaanoo muy njaago mooy përëm taw përëm taw moom plat la boo xamante ne njaago yi ñoo ko xam ak ñi dégg njaago mooy ñànk tàng la ñu jël soow def ko teg ci diwtiir waaw lu neex la bu dee nag ci yeneen plat yi moom paa ah, ñaa xam na loolu bu baax ci man. mboroxe mooy sax <laughs> mboroxe bëgg naa ko. ban xeetu musique ngay faral di gën a déglu. musique bon ki ma gën a mën a daanu ci musique moom mooy Kumba Gawlo Seck waaw ndax euh, instrument yi koy accompagner toujours ci euh, ci ay woyam ma neex la à part moom yaa Cheikh Lo wala Souleymane Faye ñetti ñi daamee Kumba Gawlo moom dina may daaneel léeg-léeg ci musique quoi. soxna Ndeye Fatou Ndiaye kon nag sa gën a ngoog ci biir émission sorti Louis Gomis. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision bu Walfadjri yi dalee na jàmm ci seen émission sorti sorti nag ay bës bi lee xuus tugg ci biir banlieue bi yegg si ba yëmbal noor am na ku ñu war a toogal waxtaanee ak moom lépp lu aju si actualité bi actualité bi bokk na ci nag mbënn bi ñëwati na ndax ndox mi ren ni mu wàccee bett nañu bëri ci askan wi waaye itam balaa yi mu àndal it sonal na bu baax ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci réew mi. moo tax nag ñu sepp ci kenn koo xam ne moom inondation yëfama wàllu inondation dossier la il est expert en la matière mu di Louis Gomis Louis mu nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur waaw jërëjëf euh, Ndeye Fatou maa ngi lay fay di la nuyu tamit di la gërëm di la sant aussi ci déplacement bi ngeen ñëw def fii tey ci Yeumbeul Nord ama seet si ma ama modeste personne mm-hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp di euh, nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo di seetaan euh, Walfadjri ak di ko déglu mooy ñi fii ci Sénégal ak ñi ne ci diaspora bi di nuyu tamit ñi nga xamante ne tey ji mun naa wax ni samay genn wàll lañu commencé ko ci sama pap bi toog muy Alaaji Serigne Niang ñu gën ko xam ci Bika ak sama xarit yi toog muy Naar Ablaye Dem ak daam ñu ñëwoon tey ji ak suñu fi ak madame Na mm-hmm. vraiment di nuyu waa Yëmbal yëpp ak waa Sénégal ñëpp ñi nga xamante ne tey jii ñu ngi may seetaan wala xàmme ma à travers Walfadjri maa ngi nuyu ñoom ñëpp di leen xamal aussi tamit kàddu yi nga xamante ne aussi ñu ngi koy fas yéene yëkkati pour waxtaane ko bu ci ñagas rek du wi mbindeef mi la rek ñu comprendre ko noonu bu ci baax it njëriñu Sénégal la njëriñu banlieusard bi la merci. waaw ah luy de moom amoon amoo woon sujet at yi ndax gisuñu la fenn waaye fi nii am na sujet muy inondation yi ñëwati na. ndax dafa mel ni yow su inondation amee ci ngay gën a jax ci ngay gën a am euh, place ci débat public bi mm-hmm. mais bu inondation amul kenn du la dégg n'est-ce pas waaw effectivement dama jëloon recul wax dëgg mm-hmm. yàlla parce que tamit bu fekkente ne da ngaa ne ci mbir di ci yëngu mm-hmm. nga dem ba am ci ay rakk ay xarit yoo xamante ne tey jii mun nañu wax ne jël nañu relève bi dangay toog bàyyi leen tamit ñoom ñu liggéey mais c'est trouvé que ni vraiment Euh, moment yi ñu toll nii. situation bi nga xamante ne ñu ngi koy dund à travers les générations métti na trop ba il faut ñu wax ci. Mm-hmm. ut ci ay saafara des solutions définitives bu ko defee tamit askan bi ba ñu di dund ci ay jafe-jafe parce que Sénégal war nañoo dépasser lii Sénégal waruñoo toogati di wax ay waxuy ay pompage ak yu kenn xamul. Mm-hmm. vraiment moo waraloon tey ji ngeen seet si ma may am cawate tamit pour tontu ci laaj yi nga xamante ne moom lañu fas yéene waxtaane ci problème boobu. waaw balaa ñoo xuus ci inondation yi d' abord dañuy incliné wu devant mémoire euh, ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen même ci suuxub gaal gi fële ca île des leen mu doon mbir mu yéeme bu boo xam ne dal na ci Sénégal ñuy jaal mbokk ñi nga xam ne. ñoo ci ñàkk bakkan waaye itam di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci loru ba tëdd ci ñu daal di jóg àndaat ak seeni sago loolu nag doon nag benn balaa boo xam ne wàccati na luy waaw boobu tey ci fa tey mu ngi doog a xew rek tey fanaa biig ci guddi mhm. mais am na yu ko jiitu mhm. muy accident yi nga xamante ne tey jii ngam ci ci circulation bi mhm. accident yoo xamante ne aussi tamit foudre bi moo ko àndi muy dënn bi ñoom ñëpp tey ji wax dëgg yàlla ñu ngi jàll seeni mbokk di bokk ak ñoom naqar bi di compatir aussi tamit ci douleur bi yàlla teru leen ci àjjana yi gën a kawe baal leen seen i bàkkaar vraiment xamuñu fa ñu dëkk mais nañ jàpp ne ay africain lañu ay sénégal lañu comme ñun mm-hmm. ñuy bokk ak ñoom tiis wi ak naqar wi mm-hmm. vraiment di leen jaal ñoom ñëpp seen i bokk ak seen i jege ñaale mm-hmm. parce que mun nga ñàkk lu nekk utiwaat ko mais munoo ñàkk doomu aadama di ko utiwaat suñu borom wala nit ku mel noonu ñu koy remplacer waaw yaa ngi koy wax nag accident yi mais dafa mel ni léegi dañ ko banaliser dee yi ci accident c'est comme bonjour nekkatul loo xam ne nit ñi dinañ ko métti ni nga xam ne noonu la waree waaye itam ñiy dawal ba tey bàyyeeguñ ci xel ngir mën a moytu accident. xam nga ñun Sénégal dañoo safoo di wax rek ndogalu yàlla la. Mm-hmm. ndogalu yàlla la dëgg la seet kenn ñaanoon yàlla euh, di dem mm-hmm. daje tiis. Mm-hmm. kenn ñaanul yàlla di xëy faat bakkan mais nañu yar jikko yi. nañu yar jikko yi surtout ci côté circulation bi parce que tamit da ngay xam xale bu ndaw mu leer na la kii oto bi muy dawal ni amul dooleem sax pour conduire ko ñu di ko bàyyi muy romb alors que am na ay takk der yoo xamante ni ñu ngi ci kaw tali bi war a mun a saafara loolu am nañ ñoo xamante ne tey jii war nañ ci mun a àndi ay saafara. lu mhm. dëgg moo tax war nañ ci jóg ci ni mu gën a teele ci ni mu gën a a gaawee parce que dégg actuellement dafa bari donte suñu borom mooy faat mhm. mais teyef bi tamit ak maa bi nañ ci jël. ay mesures dana ci jël ay daan aussi suñu ko defee ah amaana mu wàññeeku donte suñu borom nag mooy faat. ci wati dee yi nag am na mm. beneen muy lii di dëndu yi faat fi ne ci biir ndakaaru gi ndax loolu yow du indi tiitaange ci yow dafa mel ni paratonnerre wala lépp luy protéger amatul ci capitalu Sénégal. dañ ci tiit trop trop trop trop dënn moom bu amee moom. Mm-hmm. bu bu dóoree rek muy mag mag ndaw mooy yëpp da tiit. c'est lépp day tukki sa àdduna day tukki. ñu dëgg ba tax na ci loolu tamit ñu ngi ciy interpellé autorités yi à travers direction de la protection civile ñu jóg ci ut ci ay saafara utal ñu ay paratonnerre mhm. comme ni ko dëkk bi amee woon parce que tamit li gëjoon na am man dënn bu may fàttaliku en 89 la daan woon fii ay yëmbal mhm. si suñu benn dëkkandoo rayon tamit suñu benn yaay xarit boobu laa gëj a dégg histoire boobu xoola 89 ba tey tey jii mu rey presque une dizaine de personnes war Sénégal war nañoo dépassé foofu war nañoo dépassé foofu wax dëgg yàlla parce que tamit dañoo prôné pour émerger Sénégal dañoo prôné pour Sénégal gën ci àdduna bi war gën ci Afrique kon waratuñoo toog naan dënn bi daan na ca Parcelles Assainies dënn bi daan na ca Fadia wala nangama nang loolu vraiment war nañ ko dépassé quoi très sincèrement ci jël ay matukaay yokk paratonnerre yi du dëgg bu ko defee nit ñi tamit nekk ci jàmm ñu nag xuus ci inondation yi nag mhm. ah, président Macky dangaa yàlla ñëw ak ndoxam fi ne liggéey am na da ngeen demoon vacances rek fi ne nii moom ñëw ngeen nag li ngeen économiser ci énergie di ngeen ko wàccee ci ndox mi xam naa ne léegi bu tawatee sax da ngay naan somnifère ndax bëggatoo dégg taw waaye taw am na inondation am na lu ngeen koy dundee fii ci banlieue bi luy métti trop di masawu coono d'abord ñi nga xamante ne tey yi ñu ngi dund jafe-jafe yooyu mm. kon ko commencé Tëngéej Diamaguène Sicap Mbao Tivaouane Diacksao Euh, Kër Massar jëm boobu yëpp waa cité municipale Camille Bass Maam joor ñooy ñëpp tey jii boo fa demee tey jii sa àdduna day tukki mhm. nga dem nga dem Petit Mbaaw sa xol day jeex nga dem lu mel ni lu euh, ñu joxati Kër Mbay Fall tool jaas ak loolu yëpp tey jii wax tëgg yàlla lafane rek dafa jéggi dayoo mhm. dafa jéggi dayoo nga dem ba biir Mbaaw aussi vraiment grand mbaaw grand mbaaw nit ñaa ngi fay dund ay jafe-jafe yoo xam ne war a dëgg yàlla war nañoo dépasser encore une fois tey jii jafe-jafe yi parce que yi bi di dund. Mm-hmm. président Macky Sall dafa bàyyi loxoom pour quoi dafa amoon ministre boo xamante ne tey jii wax dëgg yàlla dañuy sentir ne carrément que ni. kii bu fi yàggoon wala bu fi nekkee dinañ éradiquer sax même à quatre-vingt-quinze pour cent problème inondation bi Khadim Diop man xaw ma la pourquoi mu jëlee ko fi. parce que dañu sentir ni carrément que ne action gouvernementale am na autorité yaa ngi ñëw ñu ngi nemeeku askan bi mm-hmm. mais depuis ba mu fi jógee ba léegi te tega ñu fi xam ay jën farba saar gi kenn xamul kenn xamul lu fi ne wax dëgg yàlla Pape Gorgui Ndong tam non Pape Gorgui man ñëw ci moom dafa ñëw ndax am na solution yu mu proposé foog ñu jàngat ko mooy yenn solution ah xam nga Pape Gorgui Ndong bu demee ba toog tey jii waaw naan nañ jël inondation jox ko collectivité locale yi ah mais loolu xalaat la rek waaw ba mu nekkee ministre proposé wu loolu ba mu nekkee ministre proposé loolu parce que boobu mu ngi yoroon biberon di naan. du dëgg. léegi biberon bi jeex na il faut mu wax loo xamante ni tey jii peut dañ koy dañ ko dañ ko koy defaal ren meew. ñun noo ko dul nangu sax parce que maire boo xamante ne ni dama ne tey ji waral Sénégal. am na maire yoo xam ne boo demee seen commune amuñu ay directeur ñun de wax dëgg yàlla am nañ ko. ndax bu nawet bi jotee di nga sant ne carrément que nag maire ngi am lu muy def donte. Mhm. les moyens font défaut. mais tey jii maire boo xamante ne tey jii sax ay. flexible da nga koy àbb ah. kan la moom Pape góor gi. yan flexible non mais ah, tamit mais xam na xam naa. liñ ko xam na xam naa am na ñoo xamante ne sama commune lañu ñu dëkk chaque fois bu mu musaan bu mu saan jaxle ñoom lay woo. Hmm. ñu ñëw jàppale ko. du dëgg kon tey ji mënu toog ba tey ji ne ñu jël affaire yi jox ko kii xam lu ñu leen di sas mooy benn affaire y a ce qu'on appelle l'action gouvernementale muy ay canal. Hmm. au moins sax. waruñu toog di xaar état mu ñëw di leen di kiireel ñoom nañ sensibiliser population bi su ko defee ñu bañ a jël ay ordures ménagères di ko di ko sotti ci biir canal bi parce que tamit lu ci mën a amet donte population bi daay défendre mais tamit am na foo xam ne naa fa ngañ population bi mooy ouvrage yi fi nekk bu ñu fay jël mbalit di ko fa tuub bu ñu ko def ay dépotoir mooy regard yi ñuy jël sàcc kubéer yi seen suñu doom yi jël ko dem di ko jaay ay comment dirais-je ferraille yooyu yëpp bokk na ci loo xamante ne tey jii day andi. ah loolu nag problème de citoyenneté mooy posé. waa loolu nag xam nga lan la. boo defaree hmm. sécuriser ko. du dëgg ci naka maanaam tey jii doo jël rek giri avaloir dëpp ko noonu comme sax xale bu ñëwee rek bu di ko yóbbu da koy sécuriser du dëgg. Hmm. alors que ñu dem ci ragal yëpp di teg fa ay gendarme. non dëgg néew ma teg fa gendarme wala teg fa agent maanaam am na noo koy defaree de telle sorte que ka koy jël. balaa mu ko fay yóbbu dina def bruit boo xam ne nit dina fa ñëw taxaw ne ko li nga jël ndax yaa ko moom du dëgg mais bu fekkee da dangaa tabax ab regard rek jël kubéeg rek dëpp ko noonu mais xale bi bu ñëwee day dëpp da koy ubbi rek dem jaay ko bawol bawol bi du dëgg ñu ni tamit nañu bàyyi tey ji bu ñu tabaxalee ba pare oto mbalit bi ñëw taxaw nga bàyyi ba guddi gis asamaan si xiin na nga yor ndaa ko ñëw sotti ko ci biir canal bi loolu tamit vraiment doxalu réew dañu wax dëgg parce que lu ci mën a am rek responsabilité dañ koy cité dañ am courage pour di ko wax ñun tamit on est responsable d'une part l'état tamit ñun tamit dañu am part de responsabilité. curage bi tamit ñu ngi koy def à temps mais mënuñu xaar ba affaire ne këtt na jonn ñu doog ko jóg ne travaux pré-hivernal war ci dëkk bi tey jii bassin de rétention yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri tifa baa nga fa fees dell gëj nañ ko écrété gëj nañ ko fokorde pour lan te yooyu réceptacle réceptacle doo la du dëgg mais munoo jël loo xamante ni tey jii naan da ngay curé canal bàyyi ba mu taw nga naan da nga demal Kër Massar tey jii la fa nekk lan moo ko andi réseau réseau bu saturé réseau bu bouché. Mhm. du dëgg bi faut yee y ait des réseaux yoo xamante ne tey bu ah, foofa kay loolu tax président maire euh, directeur ONAS ONAS moo liggéeyul. xam nga tey bu fekkente ne da ngaa jël koo xamante ne sàmmkat la xamul xamul xamul dara nga teg ko ci direction. Mhm. kooku mënu laa andi résultat. il faut mettre les hommes qu'il à la place qu'il faut gis nga ONAS mënul toog ba nawet mu naan day curé liggéey bi dafa des ONAS normalement réseau dañ ko war a curé quatre à trois fois ci année bi. maanaam chaque trois mois ñu créé ñu créé réseau réseau ONAS. parce que ordre ménager yi ci nit ñi di def kenn xamul nu mu toll. loolu yëpp bu dajaloo ci biir ci biir canal bi pat lay def bu yàggee day def genre genre béton ci biir ah mais xoolal ONAS du inondation yi rek de du nawet kese de mais xoolal tey ji fi réseau bi jaar yëpp tey doo toog un mois le deux mois yu waa liberté jooyul léeg nga dégg ñu lal waa Castor di jooy. mais lan moo ko andi ñàkk curage du dëgg boo toogee chaque deux mois la trois mois ñëw curé ñun de ba ñuy xale. loolu la ñu daan dégg. Mhm. dañ daan jékki-jékki ne tey ji dañuy créer kanaal bi. du dëgg dem ca géej ba pompe ci ndoxu géej gi ndoxu xorom si ñëw créer kanaal yi yëpp ba mu set wecc. Mhm. du dëgg te jamono boobu nag mu ëppoon ndox. ci li ci ci ci ci li daan fekk population bi moo gënoon la bàyyi wax naan population bi dafa explosé moo tax réseau bi atténuatu ko. Mhm. du dëgg ndox fu muy jaar bu setee dem bi day gaaw. boo ko entretenir dem bi day gaaw ko c'est la vérité. bu ñu nekk fii di ànd nit ñi day théorie yoo xamante ne sant ñun sax mënuñu ko gëm c'est pas possible mënul nekk. Mhm. du dëgg nañuy kii rek réseau yi bu ñu toogee ne kat dëgmal nañ nawet un mois moo ci des nañu ubbi regard yëpp kii rek kano yëpp yëpp yëpp bu ko defee ñu tëjaat ko lépp du dëgg. Mhm. bu ndox mu ñëwee day dem. mais mënoo xam ne affaire ne këtt na joon nga doog a jóg voilà plan Orsec wala nangam solution d'urgence on va mettre des moyens ceci wala de Sénégal du loolu moom noonu. mais man li ma jaaxal président Macky bi mu ñëwee ne na ne solutionné na inondation yi ak milliards yu bëri yi mu ci injecté woon. waaw léegi nag loo gis tey. Hmm, ndox mu bëri. mu bëri du dëgg. Hmm. loolu yëpp mooy li ma la sànq rek pour revenir en arrière. amoon na début de solution Khadim Diop mu ngi nekkoon ci yoon bi. Hmm. du dëgg daan dañ daan gis ni carrément que ne fu mu toll ñu ngi nii di tabax ay ouvrage ñu ne wax dëgg yàlla yëmbal bénéficié wu nañu ci action gouvernementale kooku am courage pour wax parce que dañ koo xeex. dañ koo xeex. dox ko wax ko ba ñu am ñuy tay jii mais yëmbal ku daan wax taw rek su mu saan xiin sax da ngay tiit mhm. ñun ñii sax dañuy ragal a fay suñu portable mais tey jii dina taw ba sebet kenn du duñu woo nañu luy kat am naa problème sàngam mhm. loolu moom dañ ciy tiitaru bu baax a baax parce que lu ñu xeex la ca jamono boobu mhm. àndoon ci tamit ay nit taxaw mais ñi tamit cité day noo ñoom day dumbendooy ñoom Idrissa Tamaga ñoom Laay Dem ñoom Naar ñoom Dam mi ñoom délégué Camara délégué Pa Jogoy seen ay vieux yoo xamante ne vraiment dañu doon yokk courage Assane Sylla ba ci l' actuel maire tey ji muy Daaro Ndiaye ñoom ñëpp nekkoon acteurs yoo xam ne ñoo sa nekkoon benn say rien que pour mhm. ñoom Alpha Omar Sow ñoom ñëpp de passage ñoom leen di nuyu vraiment ñu ne koy dañ koy defar ñoom Omar Diallo ñoom Tidiane ca Bayal ñëpp vraiment tey ji moo ñu may lii amul tey ji 52 quartiers yi tey ji fu muy taw ba ñu woola téléphone la problème am na mhm. tey ji nit ñoo ñoo takkoon taxaw ñoom Paa Ibra Kebe bu fas Kofé tamit ñoo ñëpp tey jii nekkoon benn say ak euh, ndeng si yàlla si sama ñoom pap euh, Paa Goudia bi ak euh, góor gi sëy ca Jidda Marine dañuy te ni yàlla na yàlla oyofal suuf seen kaw vraiment mu nekkoon ay nit yoo xam ne ñoom Bernard Mendy sama nijaay ñoom Paa Dam Mbaj ñoom ñëpp tey jii taxawoon pour defar yëmbal tey jii njëriñ laa ngi nii vraiment yëmbal bu tawee waxatu ah yéen kay waa gan la ñuy jooy ak waa waaw xam nga tey boo dee banlieue banlieusard mm. bu sa kër morom di takk wala sa dëkkandoo li nga war a jox mooy nga def cri de cœur def alerte mm. wala nga bokk ak moom jooy bi mm. mais doone man sama yoon nekku ci sama ngañu nekku ci déedéet ñu doxewu ñun parce que ñun banlieusard bi ñun ñëpp benn lañu parce que bu ñu nee banlieue rek boo neewuñu yëmbal noor seppi jàmm gan si kambaaw ñun ñëpp dañoo qualifié de banlieusard moo tax ñun toujours suñuy combat dañ koy bokkandoo di yëkkatindoo di tegandoo di xàccandoo di dirandoo mhm. mooy ñoom tey acteurs yi ma lay wax ne ñoom Laye Sulu ñoom Babacar Mbaye Ngaraaf ñoom Abdou samat mais ana laaj naa la milliards yi ah, du dëgg am xam nga boo xam nga tey ji boo ma nee boo may laaj milliards mm. te man fekkow mu instance ma ci instance de décision yi fa ñuy nas ak fa ñuy nocce. bi xam dara yow. mi waaw am na dégguma la am na lu ñu réalisé. déedéet après Khadim Diop Diop euh, Pape Gorgui Ndong ñëw na. Pape Gorgui Ndong ba mu fi ñëwee. kenn moo Fatou Tambédou ah, ah, Fatou Tambédou Fatou Tambédou tamit kooku dañ koy saluer de passage di ko gërëm aussi. Mhm. ndax lan ba mu nee cëpp wane na ni moom banlieusard la bëgg na liggéey pour banlieue bi waaye tournée ba mu defoon keroog moo ko rey. ban ba mu nee cëpp wax dëgg yàlla pour bëgg a liggéey def na tournée kat ànd koog waa ministère am. ànd kook service technique yi ànd ko ak aussi acte développement yi. foofu la jàpp naa ne man personnellement. Mhm. foofu la problème am jógee moom ak Diène Farba. ah tournée bi lu ci nekk. no parce que xam na ne jàpp dafa jàpp ne xale bi lay jël place am ci sama gis-gis. <laughs> daa ñëw doon liggéeykat mu doon dafa ñëwoon pour liggéey te il n'a pas compris daal di benn ci benn ci benn ci benn bërëb rek. kon dafa tàmbee du boo yëgoon vraiment non mais tourné ngay toog ah, <laughs> loolu c'est grave ci boo xam ne bëgg nañu vraiment amoon amoon na volonté pour liggéey de kooku dama koy wax ñu di ko dégg ginnaaw kenn nenu ma joxuma Fatambe do mu may dégg Diène Farba nga may dégg amul benn ministère buy taxaw ne Louis Gomis ñëw na fi jox naa ko fi un franc man ginnaaw kenn nenu ma je marche la tête haute mais far tamit wax dëgg amoon na volonté pour liggéey. parce que mu ngi mu ngi mu ngi tegoon tànkam ci yoon bi malheureusement amaana Diène Farba comprendre ko woon ba problème bi am seen diggante. mu dem ba amatul budget yoratul. amul yoratul dara da doon toog moom cundum. Mhm. boo ko si musaan dem di seet sax mu ne la maa ngi nii. Mhm. wax dëgg yàlla dem nañ fi à ah, maîtrise ak ak kër yaa ngi may dégg. Mhm. mais dañuy bu ñu génnee dañu xam ne carrément kii am na volonté pour liggéey mais amul moyen ah oto amulee essence du biir bu biir bu feesulee du du nit ki nit ki day góor day tëdd fi mu tëdd aussi la vérité. mais na Pape Gor du liggéey la. lan la fi def. Ah. laa naa la ko lan la fi def. <laughs> bëri na anamu limal ma ci. ah ba mu lañ ko defal promotion mu yor jeunesse. ban jeunesse jeunesse bi lan la ca def <laughs> xam nga bu ñu toogee naan liggéey na te man gisuma fi loo xamante ne man personnellement ouvrage bi Pape ji Pape Gor gi moo ko wax ba ñu def ko fi hmm. wax dëgg yàlla amul jeunesse ba mu ko yoree gis nga la ca ne attanu ko dañ ko faa jëlee teg fa keneen. bu ko mënoon dañ ko fay dañ ko fay delluwaat donc bañ na ko ba président Macky Sall dafa moo moo président Abdoulaye ñoo yem équipe nationale la ñuy yor bi bi roulé. Mhm. bi la la moo ëpp boo doxalee rek ñu remplacé la. Mhm. c'est ça boo mënee la nga mën xam ko di ko doxal gisuma lu ñu fi jële ka mënoon xam tey def ñu gis ko dañ ko fay jële muy Khadim Diop man dalal jële di wooy fort yoroon na équipe bu dëgër ànd kook ak ñoom. commandant kanaar moom nekkoon coordonnateur bi ñoom ma dikki Cissé loolu andi woon tey ji taw feex yaakaar wax dëgg yàlla ñu def defoon fi lu bare bari bari tuxal nit ñi dëkkal leen fa wax dëgg yàlla tey ji mun nañ wax ni ak 70 pour cent wax dëgg yàlla jàppale na population jàppale na banlieue bi nit ñi nekk nañ ci jàmm par rapport ak at yi jàll. ñu yaakaar loolu day passé dañ koy fàttalikuwaat tey ji ñëwaat di ko dund. pour la mais aussi est-ce que tamit travaux yu terre yi indiwul tuuti inondation parce que ndox nag du bàyyi yoonam. xam nga TER dafa yóbbu nit ñi TER rawatina ñi nga xamante yi teer bi dafa jaar seen boor. xam nga gis nga projet da nga koy étudier d'abord balaa nga koy andi ci réew man du ma technicien de waaye ci li ma jàpp ci xam-xam bu gàtt balaa ngay indi dara ne da nga koy tabax ci réew da nga koy étude d'impact bi d'abord da nga ko war a étudier d'abord lii su ma ko defee ñi ma war a lor après naka laay solutionner seen problème avant ndox mi waa Tëngéej li ñu doon jooy ak fi bi jaar yëpp ay yoon mu jig ci ay tunnel la ñuy jaar barki Demba Ndiaye bi taw bi tawee nit ñi foo ñu noonu teg ci ay pousse-pousse pour lan lu tax loolu ñàkk ñàkk xam li ñuy def la ndox du bàyyi yoonam effectivement du bàyyi yoonam mais da nga utal yoon bu muy jaar après du dëgg. tey ji yàlla tere bu fekkoonte ne tey autorail baa ngay daw ak courant ba ñu wax ne moom lay ànd te ku ne xam ne courant ak ndox jibooñu mara dem si dara dara amoon rek wala jéey am lu ñuy wax ah ndogal yàlla nañ bàyyi loolu balaa ngay bañuñu teer bi bëgg nañ teer bi parce que tamit ñoo prôné pour Sénégal émerger ñoo bëgg dëkk bi dox mais bu ñuy andete yu mel noonu di ko ci réew. Mhm. nañu def lu ñuy wax étude ba pare étude d'impact bi maanaam tey jii lii bu ma ko defee ñu war a après naka laay solutionner seen i problème pour bu ko defee kenn bañu a loru kenn bañ a jooy. mais lay xew Tëngéej yëmbal sud ak conseil fi bi jaar yëpp jàmm gën si kàmbaaw yëpp tey ji loo mën a ne problème bi mhm. très sincèrement yaa ngi doon wax ne dangaa xaw a reculer ndax da ngeen la gis ay relève ci wàllu euh, xeexum inondation mhm. man bu dul yow mhm. luy gomis laay sugg mm, ah, Babacar Mbaye Ngara xamaatuma kenn kuy coow wala kuy défendre wàllu inondation waaw c'est que loolu boo ko gisee ñun ñoo fës ñun ñoo fës mais derrière Louis Gomis y a de Louis Gomis Louis Gomis rek la ñuy gis mais Louis Gomis boobu ñu gis équipe la tey jii bu ñu taxawoon rek rek rek rek rek rek pour taal banle wala pour tëj banlieue bi motuñu sax cinq mille pour ñu def ko. Hmm. bien sûr li may wax sa pèse très bien mooy moom bu ñu taxawoon léegi léegi léegi léegi pour yëngal banlieue bi ci vingt quatre heures rek da nga. kon mët ngeen armée daal. non weesu nañu armée. <laughs> weesu nañu armée li may wax gars yi xam nañ ko. commune bu nekk am nañ fa ay ay représentants. commune bu nekk am nañ fa ay représentant ci seize communes d'arrondissement yi nekk Pikine yëpp ak cinq communes d'arrondissement yi nekk Guédiawaye ba Tëngéej. maillage bi dafa rëy dañoo dañoo préparer suñu bopp. amuñu benn problème nag. ñu dëgg amuñu sax seen i biir sax ñu ñu ci tuddee ay doom inondation sax am naa ci ay turandoo. ci bu baax sax. mais ma koy nuyu ma koy nuyu def passage. <laughs> fa fa laay ñëwee léegi inondation xeex bi. Mhm. xanaa fonction publique dafa am fonction dafa am grille boo xam ne dañ ko réserver ci wàllu salaire sa genre gi ndax coow leeg coono bi am na lu koy fay nag. waa dëgg la man de man damay wax fi ma toog man su fekkente ne ni benn direction walla benn ministère am na lu ñu enveloppe boo ñu jaglee luy gomis mm. man leen wax nañ li ci ginnaaw dëgg muy ay kàcc. waaw parce que koo ëmb sànq la ëmb kersaam te heure bu ma neex ma fële ci télé yi yàq ni ki lu mel ne xeme parce que Sénégal léegi nag dañoo xam dëgg olof yee ne koo ëmb sànq ëmb kersaam kon nit ki bala joxe bala joxe enveloppe am fu ko neex ngay xool. su nekkoon tey booy wax loo xam ne ak askan wi moo ko moom. waaw da ngay da askan wi. waaw état bi war na la cee mën a fay par weer. pourquoi <laughs> bis boo ko defoon yàqu. bu ma ko defoon tey nangu ko ca jamono yooyu yëmbal noo du am lii tey et ci jamono yooyu dégg naa ci proposition bu nekk amaguñu lu ñu de solutionner problème bi noppil comme yow da ngay yëngu ci mbirum bâtiment da ngay yëngu ci peinture kañ jox la ay logement jaxaay nga peinture ko man leen dee buggum bu dee loolu moo tax rek ma xam ne kon du am dara nag canal yi ñëw yëmbal noo solutionner leen problème bi kaay wuyu man leen kan ñu ne ma d man leen aw ma jotam maa ngi pompe maa ngi ci ndox mi ku ma soxla na ma ñu fekk ndox mi Omar Sarr ñëw na fi Ousmane Ngom ñëw na fi Mamadou Seck ñëw na fi. parce que ñu lépp lu ñuy wax rek dañu ne duut baaraam boo ñëwee gis ko Souleymane Ndéné Ndiaye recevoir nañu ba ñu fa toogee tamit tàngoon na trop waxante dëgg fa amoon. ba ñu fa jógee tamit moo andi lii tey dëgg. Xaadim ji recevoir nañu. mais bu dul métier bâtiment bi yow amul lenn looy am ci inondation ba mu jaral la lii yëpp. amuma au contraire. inondation mun naa wax ni bokk na ci li ma li ma li ma ruiné. waaw parce que léeg nga ñëw ci kër. Mm-hmm. fekk nit ki wax dëgg yàlla dëpp ci nam feebar day ay njabootam yëpp dem moom doo nga fay nekk apprendre sax ak soxnaam. Mm-hmm. doo mun a sax dem pour bàyyi ko. loolu man sama xol mayu ma loolu sama buntu nekk daa ma ko tëj dama naan dama naan toll toll ay jamono yoo xamante ne damay toba sàgg ñu ne ma kan kan kan fëgg ma ma daal di ubbi dépense li ma waroon jox samay doom sama mu yëkkati joxe ko hmm? waaw. bàyyi njaboot sama njaboot parce que tamit xamoo nit ki soxlaam fa la ko toll. Hmm. loolu nag dama ko donn samay waajur. Hmm. loolu dama juddu fekk ñu koy def. lu dëgg malgré leur maigre moyen mais dañ daan bokk. lu dëgg. loolu moo ne ci man yàlla def tey jii ma dem ba dëkk ci kër koo xamante ne moom mi tamit. kuy bokk kuy bokk la. lu mu am bokk ak askan wi lu mu am bokk ak njabootam lu mu am bokk ak jàmbur yi muy El Hadj Serigne ak muy toog. vraiment li ñuy wax ne toujours rek tombé mooy waral ay gaaf. yàlla toujours montre yu baax yi rek ñooy ñooy bokk heure waaw. loolu loolu leer na. Mhm. Euh, président Wade jaar na fi. Mhm. taxul inondation solutionné wu. Mhm. président Macky ñëw ne liñ ci doon luubal dina mhm. dëñ. parce que dinaa ko jaarale ci yoon ba mu dëñ fi. te ba tey ñuy wax waxu inondation ci moment boo xam ne Sénégal nee na. pays émergent la aspiré. te loolu du indi contraste. déedéet xam nga toujours lan koy andi lu ñëpp bokk dañ ko doon waxtaanee. du dëgg xam nga nit ki mënoo koy fajal te laajoo ko lan moo koy métti ñun ñu fi màggee fooyee fi defee fi lépp. daan nañ xam fa ndox mi daan jaar gis nga kanaalu yëmbal yii dama bokk ci ñi nga xamante ne ni ah maa leen orienté ne leen carrément fii ak fii ak fii ak fii bu ngeen ko defee dina solutionné ndoxu yëmbal noor solutionné ndoxu yëmbal sud di ci gërëmut aussi tamit waa Malika commencé ko par sëñ Mamoun laay le fils du xalif ak Bagum Kër ak l' actuel maire sama nijaay Talla Gadiaga parce que tey jii métti woon na trop pour jëlal ndox mi teg ko ci lac wuy parce que riverain du lac yi fa newoon ñëpp daan fa bay dañ ñee wañ seen loxo ndeysaan ñaan leen ba ñu sédde ci ñoo xamante ne ci tool yooyu lan daan am lu ñuy dundale seen njaboot mais ñu def ko pour sauver askan bi loolu lu ñu leen di gërëmee la man boog personnellement ci turu waa yëmbal nord et sud dama leen ciy gërëm bu baax a baax. non loolu c'est très important. Mhm. ay honnêtes yu doon béy. waaw ngir di ko dundee. waaw ngeen ñaan leen ñu séddee leen pour ñu mën a bàyyi ndox mi jàll. loolu moo am am ay maigre moyen lañ am. ñu ay maigre moyen la ñu am seeni tool la ñu séddee parce que trop point lag bi dafa daan dem ba yàq seeni tool yi ñu espace yi ñu daan béyee. Mhm. tey jii li may wax boo demoon foofu wala nga tàllal leen micro neel carrément nga luy gëm si loolu mu wax dëgg. exemple la ci borom doole yi exemple la ci borom doole yi. ndagam ñooñu ci ay baa doole comme man ñoo joxe seeni suuf. Mhm. ngir sauver seeni moromu jullit seeni moromu doomu aadama. wax dëgg yàlla loolu moom lu may toujours bu ma jaaree Malika rek dox de côté boobu rek lu may marqué la. su ma gisee ñetti ñi ma lim nii muy Talla Gadiaga sëñ Mamoun Laye ak sëñ Magum chaque fois rek image boobu day reflété sama kanam. keroog bu ma demee ci sëñ sëñ Magum wax ko ko gëmu ko woon il a fallu que mu déplacé ñëw ba Yeumbeul Nord gis askan bi ni ñuy dundee dafa ne ma luy ndox mi dina dugg mais dafa opposé woon. ne ma ndox mi du dugg nangam nangam parce que ñoom am ils avaient un projet là-bas boo xam ne canadien ñoo leen ko financé ñoo ko waroon a financé mais bu mu ñëwee gis rek automatiquement rek yaramam dafa daw loolu lu ñu di gërëmee la trop trop trop man moom occasion bi la amoon pour def ko. te dinaa ko wax ooy fort. Mm-hmm. oui non loolu sax c'est un geste noble mm-hmm. bu war a saluer la. te mm-hmm. day wane rek ne joxe du ci poos xol la. ci xol la loolu nag moom manqué ci suñu autorité yi. Ah. bien sûr yéen autorité ñan. ñii te ji li mooy li ma la wax rek dafa def dañoo doon dépassé lii. Mhm. dañoo doon dépassé lii donte ñoom ñu ngi jéem mais il faut tamit ñu gën a labali ndox mi utal nañ ko nañ ko utal yoon fu muy jaar nit ñi nekk ci jàmm. Mhm. su fekkante ne leer na ne fii dañ ko war a toj comme nañ def te Tawfekh Yaakaar ak jaxaay nañu ko toj tuxal ñooñu yóbbu leen am na yeneen espace yu ñu mën a jógal nit ñi encore nañ ko def. yaa ngi fi indiwaat de ndax ndàmpaay ba après day jur coow. non gis nga. lu ñu waxtaan rek du jur coow Tawfekh Yaakaar nga ni def nañ ko am jurul coow nit ñi dem nañu te jurul benn coow lépp organisation la. Mm. ay enquête lay laaj bokk ko ak ñi nga xam te ñoo dëkk ca gox ba loolu la ñu def ba ñu ñëwee def enquête acteur développement yi la ñu àndal fii mooy kër diw ñu ne waaw est-ce que moo ko moom mu taxaw ñu foto ko numéroté ko ba ci commission d'attribution bi dañu cee boole woon mais tel n'est pas le cas jamono kii jaxay. yaa ngi xam nga góor gi tamit am xol bu xolam bu xolam bu rafet rek xam nga jox leen kër yi. noo gisee attitude du gouvernement yooyu rawatina bu président Macky euh, ça fait dix jours. Mhm. Dakar zone banlieue yi nekk ci inondation yenn kër yi daanu ba ay nit ñàkk seen bakkan tegu fi tànkam moo ko euh, nguuram waaye bi nga xamante ne chavirement am na Euh, ci côté. automatiquement dafa dem dafa dafa dem xool ay doomu boos nekk ci. waaw ay borom doomu borom doole nekk ci ca guddi ga. nee na fa cëpp boobu attitude njiiti réew nga xam ne moo yilif ñëpp noo ko gisee. manque de considération te banlieusard bi moo gëmul boppam. Mhm, waaw xam nga tey ji mënu ma tey bu ñuy dem élection wala di jongante. Mhm. nga sol sa dàll seet si ma. wax ma say wax bu ma gëm la ba convaincre ma ma yëkkati sama lépp jox la ko bu subaa ma am jafe-jafe. seet si woo ma xamoo ci la laa nekk la preuve nag tey jii mooy fi may wax ak yéen Aly Ngouille Ndiaye mi ngi ci banlieue bi dugg na jàmm ji gën si kàmbaam guy ga lañ ko yemloo alors que ci biir jàmm ga si kàmbaam ba tele maam jaare foofu doomu adama yaa ngay sonn ah pour lan loolu nañ leen di wax dëgg nañu wax seen i techniciens yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen wër ah nañuy boole acteurs yi ci seeni i yooyu pour ñu bañ leen a mere si boobaa tamit dañ naan leen duut baaraam ci lii la affaire bi nag jamono ba dama ne la gëj nañ ko am ca Xaadim Diop gën nañ ko am ci Omar ci ci comment dirais Omar Gueye Omar Gueye daan na ko def. Mhm. gën nañ ko am ci Omar Sarr ak Bekaay Diop ak Ousmane Gom xam nga mais ñi fi nañ pour lan loolu nañ wàcc terrain bi ñëw seet askan bi Serigne Mbaye mooy kan pour ka ñu ko jox inondation bu fekkante da nga maa seexlu dama maa lay gën a jéppi. ah seexlu mais lu tax ñëw fii lu tax ñëw ba àll bu ñu jaar wu moom mooy kan. te moom lañu ñu dénk suñuy problème pour pour mu saafara ko. moom ministre quota la. quota wu lan waaye nañ bàyyi loolu quota bi ku ko jox gis nga quota askan bi mu ëpp fukki junni yoon quota yi ñuy wax noonu. parce que ñoom li ñu doon tey ñoo leen ko ñoo leen ko def. Mm-hmm. costume yi ñuy sol bu ñu naanee ndox sax ci suñu ñàkk la. nañ ñu jox cër. nañ ñu jox ko nañ ñu delloo li ñu moom. Mm-hmm. ndax ëllëg a ngi fi. waaw daan daan ñu soxlawaat. dëgg la voilà mais maa ngi dégg ngay wax yëmbal nord waa yëmbal sud xanaa bokkuñu ci sa ay préoccupations. waaw ah, mais déggoo lu ma la sànq. Hmm. dama ne la ñun la ñuy xeex. Hmm. moo andi pro moo moo solutionné problème mu yëmbal nord ak yëmbal sud. Hmm. ànd koog suñu frère laa Zulu. ñoom Pape Tine doog a ñëw ah tey jii ba ngay dugg yëmbal jafe-jafe yi waa yëmbal sud daan dund tey ji wàññeeku na. jafe-jafe yi waa yëmbal nord daan dund tey ji wàññeeku na. dee xuus naa de. Ah. ñëwuma rek jàll. xuusoo moom tànk yi tooyul. <laughs> ku eh, dama ne la dakaar moom wax dëgg yàlla bu tawee moom mbedd yi danañ taa. <laughs> rawatina cité des eaux la déet waaw xam nga. waaye waaw woo ma ne ma luy gomis sama mm. oto mënul ñëw. waaw loolu loolu leer na mbedd dakaar yëpp a ngi. waaw mu ngi noonu nag kon nag. dell ak ndox waaw mais moom fu mu toll nii moom. Mm-hmm. yëmal moom fu mu tawee. buy sebet. Hmm. bu la neexee lal moom. wala nga ñëw nag ci waxu yëmbal. waaw ak euh, dooree ko ci littoral bi. waaw bi nga xamante ne amoon nañ ci yaakaar ngir ñu mën koo suqat ba mu jëriñ askan wi. ñu ngi koy brader fi mu ne nii ñu ngi koy dagg ay di ko morcelé. ñu hmm. jaay ko ñu ñu war caa dëkk. waaw c'est vrai maa ngi koy dégg coow loolu ca géejawaay. Hmm. waaye dégg guma ko ci yëmbal. parce que tam lu ci mën a am tamit rek dañ koy waxte dee te ñeme ko. tey wax lépp loo xamante ne xaj na si suñu biir bàmmeel di gërëm it président de la république ci 23 ectares yi nga xamante ne ni jox na ko waa Yëmbal Noor pour ñu def fa ay infrastructure jëkkee ko ci stade municipal bi nga xamante ni dama ko jooy ci kame ci ci micro Théodore Semedo ba amatuma ay ci ma koy nuyu de passage xam nga yàlla def tey jii ah am nañ ko di ko gërëmee tamit équipe municipale bi fi nekk en commençant par le maire. parce que tamit wax dëgg yàlla lëg bu ma cee alam na ko gën a may cooy man franchise moom ma yàq su baaxee damay am courage ne baax na su bonee damay taxaw ne carrément bonam sauf fi may waxee mooy su demee ba nga xam ne am na détournement d'objectif maanaam. yow jàpp nga ne liñ ci war a def dinañ ko def. incha allah gëm naa ko. Mhm. bu soobee kirista bi gëm naa ne ñoom dinañ ko def su fekkente ne dara dafa ñëw nga associé si nit ñi ki ki nar lu jub bu ñëwee danaan ko danaan ko danaan ko da koy teg étalé ci place publique bi wala woola ne la kat lii ak lii moo fi ne lii ak lii daan na ma def du dëgg mm-hmm. mais ki nga xamante ne koo jël bokk ko yenn ko mm-hmm. dugal ci saagam di dem ak moom narul lu jub kooku dañuy taxaw grand di ko xaar bu ñëwee ñu koy rentré ba dënn bi laal suuf ñu jogi ko <laughs> loolu bon loolu moo fi am mm-hmm. ñu ngi defar ñu ngi xaar mais nag ñaan nañu yàlla aussi le ministre des sports ak état du Sénégal ñu def ci seen loxo parce que tabaxu stade ab commune attanu ko commune kese attanu ko parce que maigre moyens yi fi am ak budget bi fi ne. mënut mhm. a tabax stade bi te xale yi soxla nañ ko. waaw yow nga ne ñii am nga si ñoom yaakaar te fii ci yëmbal sud en face lycée bi terrain bi jeunes yi moom. yëmbal noor yëmbal nord. Mhm. ñu jël ko daggat ko jox ko jox ko ay nit ñu tabax ci kër ñooñu ñoom ñooy bàyyi littoral 23 hectares. xam nga loolu maanaam nen la bu ne fàng ñu teg ko. waaw. te ba léegi fi may wax ñu ne borne yaa nga ca biir. Mm. ci suuf sa. Mm. mais ñu ngi xaar kon ma fay ñëw di fa tabax. Ah, ku jënd tabax parce que looloo ànd woon mouvement ati ànd taxawu yëmbal. Mm. te ñu am ci lu ñu naqari. parce que ñeneen ko def la woon tey ji dem nañu. ñu bàyyi ñu ñuy xeex ci suñu biir ñu doomu yëmbal. bokk na ci lu ma métti. ñenn ñoo ko defoon. mais ñu ngi fii c'était des anciens sous-préfets. kenn ki mu ngi fii di ma dégg mu ngi may dégg ba mere ma ci. ba mu fa ñëwee teg tableau bi ñaari ñoo taxaw ñu wax ma ko damaa waaxu jóge fa ma dëkk daal ñu ba foofu boo ñoom oo Semedo yëpp ñoom Vieux Père njaay ak journaliste banlieue yëpp yoo xam te ne tey maa ngi leen di saluer de passage ñii ñooñu def point de presse mu woo ma ne ma Louis Gomis xanaa duma sa xarit ma ne ko xarit pour lan mu ne ma point de presse boobu ngay def ci affaire foncier pourquoi nga di ko def ma ne ko monsieur le sous-préfet neex naqari projet bii du jàll quitte il est ma vie man yëmbal mooy sama xarit dund ma li ngay wax mu ngi may dégg sa PS bien mooy moom nii laa ko tontu ci téléphone bu fekkente ne ma ko ci téléphone amul yàlla na kaddu gi mujj bu Sénégal yi di dégg ci man. mu ngi nekk en service ba léegi. xaw jéem a li jënt ci ndax jëlee nañ ko fi dëgg rek mooy njëkkati mooy mujj. dëgg mooy njëkkati mooy mujj suuf si suuf suufu askan bi la suufu xale yi la. parce que mënuñu comprendre 3000 mille yi nga xam ne ñoo ne ci lycée yëmbal bi di fa def seen épreuve physique. Mm-hmm. boo fa demoon tey tey tey tey xale yaa nga fa di football. ñetti at xaw ma ñeenti at ci ginnaaw juróom-ñaari xale labandoo ci benn ci benn dimanche lan moo gën a métti faute d'espace ñu am lii lii benn ci ndeyam bii ñu ñëw nañ koy dagg pour jaay ko def ko seen poste pour quelle raison ak fan lañ ko teg dagg nañ ko waaye duñu ko tabax xanaa ñu rey jeunesse yëmbaluwaas bi yëpp yëmbaluwaas bi yëpp ñu doog ko tabax mais tant ñu ngi dund nee naa la dix mille louis ñu ñu ngi dund xanaa bu lu bu dee yeneen louis taxaw mais loolu maire moo leen ko may su leen ko maire mayutoon duñ ko def xam nga maire bi fi ne hmm. jamono ba ñu koy xeex bokk na ci am mouvement bi ma def ne ànd taxawu yëmbal hmm. te ba léegi gisuma fu mu génnee autorisation de construire jox ko nit te jàpp naa ne mbir doo ci bokk di ko xeex di ko xeex tey ba yàlla may la ndombal tànk ngay liquider jeunesse boobu wala di sacrifier jeunesse boobu Daouda Ndiaye peut-être doful ba di ko def. su ko te gëm naa ni du ko def aussi. su ko defee nag mu jàmmoon loog moromu jeune en commençant par man mi. xam na leen xamante ngeen. xamante nañu. waaw ñoo fi yarandoo. est-ce que seen feem dara ump na ko ci moom it mu di leen di xaar rek. déedéet dara ump ko ci lii moom wax dëgg yàlla. chaque fois fu nit musaan ñëw di di dóor peel. Mhm. soo ko woowee téléphone mu am mu yebal ay service am. loolu moom dañ koy wax quoi il faut avoir le courage de le dire foo ko ne allo am na ñu ne ci terrain bi di daaj ay chaise wala nangam mu ne ma coupeel grand mon ami coupeel wala mon frère coupeel gars yaa ngi ñëw mu some leen waaw kon keneen kay ñëwi tamit bu defee na ko si dul noonu rek ñu jàmmal ak yow. mais loolu balaa muy déborder du ngeen ko wax ci autorité yi ba mu leer soit joxe nañ terrain ou bien dañuy bàyyi nit ñaata yoon la ko wax dem nañ ci procès. dem nañ ci procès ba li ma la nii sànq ñu jàpp ci suñu benn frère boo xamante ne vraiment métti na ma métti na ñun ñëpp te ña ko ko doon def la yëpp tam dem nañu bàyyi ñun ñuy xeex suñu biir loolu lañ leen il faut que mu arrêté il faut que loolu jeex. il faut que loolu jeex ñun ñoom du ñu ñëw du ñu féewale mhm. parce que ñu suñu lépp fii lañ ko defee suñu lépp fii lañ koy bàyyi du dëgg suñuy doomi après ñooy ànd suñuy jabato ñooy ànd kon buñ ñu boole ñu génn yëmbal nag dem ci parti démocratique sénégalais lui kat militant libéral la bu mag nga bokk bu mag ci laa bokk takk ci lépp sax seen gouvernement bu bees bi noo ko gisee remaniement bi de wax Wade moom day jàpp ne bu léegi mu ngi biir palais quoi <laughs> comme day joxe ay ministère ah, ak ay ministère am ak yooyu jëkk jékki rek remaniement non man de personnellement <laughs> la may wax toujours rek li may wax mhm. ku jàpp ni yow la concerné yaa xam dunduma loolu mais man li Ablaye Wade def d'accord ma ci ànduma ci lu tax d'accord ndax mënuma comprendre ses fidèles compagnons ses ses ses anciens compagnons damay même cité des noms ñoom ñi may cité ñii ñëpp amul kenn ku ci mës a taxaw ma lekk sa cent francs mhm. en commençant par Maître Madické Niang ku ne xam na ne à chaque fois Moussa Abdoulaye Moussa am problème. mooy solo robu avocat am ko. ba këram muy génn ba ci génn doomam bi Karim Wade nii. da cay dox à quatre-vingt-dix-neuf pour cent pour mu génn. Omar Sarr kan moo ko gën a bëgg Abdoulaye Wade. kan moo gën a fidèle Omar Sarr ci ci ci ci parti démocratique sénégalais ah Maître Sall ñoom Babacar Gueye ñuy taxaw fi yëpp di leen ngaañu tey ji nag nu ñu mel ci Abdoulaye ci Abdoulaye Wade. ah ba bi ñu jàppee Karim Wade soo wax ñu la Karim Wade mooy suñu njiit mooy suñu président mooy suñu candidat mm. amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan Z waaw Abdoulaye Wade dina toog tey jii di jëndee ay xale yu ndaw yoo xamante ne sont pas encore mûrs en politique di dàq ñooñu au détriment des jeunes man jeune laa comme ñoom d' accord d' accord naa ci politique générationnelle mm-hmm. mais relève da koy préparer sa àndandoo wala sa sa xarit doo ko toroxal Ah, man ne maître Wade dafa toroxal. dafa leen toroxal il faut avoir avoir le courage de dafa leen toroxal. Mhm. toroxal nit ki la ah. maître Madické Niang ban teraanga la ko yàlla joxo ci àdduna fëkk da koo yóbbaale Malick Macky Sall da koo yóbbaale mais am na droit mu ne carrément que ne lii ngeen nekk nit ànduma ceeg yéen dañu ànd ci lii bu ko d' accord rek d' accord la nga jékki-jékki xale ko ne il roule pour Macky Sall. Mhm. et pourtant dem na élection jongante ji. kon de xanaa keroog. Euh, sa tension monté na ba wàdd defee communiqué ne euh, militant yi nañ voté ñëpp nañ voté ñëpp sauf maître Madické ak. da dafa moom nit ñi man man daa xam ci ma woteel Madické ñaan laa woteel ma. Ah, daf ma moom yaa ngi koy wax ci télé bi. dama koy wax dama koy wax moomuñu parti bi la bokk PDS la ñu bokk dañ koo bokk ñun ñëpp. non moo ko moom moomu ko déedéet santul wàdd santul wàdd tey ji bu ñu demee ci urne yi du ay wàddeen kese ñooy wote. xanaa du moom mooy financé. financé. mooy financé certes. mais tey jii bu financé moomul nit ñi. kii paye commande. déedéet kooku na commandé ay nitam ay nit ay nit automatiquement ñi nga xam te ñoom ñoom lay. compal mooy constante ñeneen ñëpp variable lañ. waaw c'est parce que mooy li ma la sànq rek ku ëmb kersa ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Mm. du dëgg man ginaaru kenn nenu ma man luy gomis je mooy ma ginaaru kenn nenu ma Abdoulaye Wade la mu def teg ko fenn ci yoon Omar Sarr kan ñu ko torox tout récemment ci ci biir assemblée xotti costume am <laughs> ah. yaa ngi ku mu doon sa baay sëy ji doo ci kontaan te deem xajoon na fa ndax kan kanam Wade ah tey jii kooku am na neneen la ko mënoon doxalee sax ba ba ba ba bañ ko def lii. eh Zeyna madame Ba indil ma image bu ñu ko rétro. waaw xam nga loolu loolu dafa ñaaw ah def loolu Omar Sarr tey jii jamono bi nga xamante ne mallette yaa ngi daw ci élection yi passé Omar Sarr da koo dummayu waa tey ji ku demoon ba ne Abdoulaye Wade tey ah après les élections. Omar Sarr roule pour Macky saa war na koo gëm ah Macky Sall pour pour pour Macky war na koo gëm ca jamono ba nga xamante ne gambulem baa nga tege da ngay ñëw tànk naan tànk yóbbaale jox say jegeñaal ñu dumóoyu loolu pour lan sa doom ak yow téye la sa base nga ñëw taxaw ne carrément que ne ñii fu mu toon nañ leen tegee la ca touche ba nañ leen yóbbu ca retraite politique moom moo waroon na jiitu ca retraite ba ñu tegal ko piliyaanam tegal ko satalaam tegal ko sijaadaam jox ko kaamilam Maître Wade bien sûr. kon moo war a bàyyi comme bu dee dafa ne politique générationnelle na bàyyi dañu bàyyi léegi ak parti bi. Hmm. man contre ma choix yi mu def parce que amu benn problème ak ñoom mais nag jëfin bi ak façon bi ak manière bi d'accord mu ci. mais moom euh, tamit dafa mel ni l'histoire da koy jox raison ku mu mës a la yow da ngay nekk di liggéeyal Macky Sall mujj ngaa nekk moom ci yenn cas yi ñëpp nag. waaw mooy kaña yi kaña yi teel a daw. <laughs> ñooñu tey ji am na raison ci ñoom. parce que. Serigne Mbacke seen kaña la day yee gerte. Pape Samba Mbuub kaña la. moo fi moo fi waxoon Mas Jonkon amoon na émission boo ko tëral mu ne la gars yi dañu leen jox Mas Jonkon. yaa ngi fàttaliku moom Pape kii euh, euh, Pape bi la moustache la. Pape Samba Mbuub Pape Samba Mbuub mu ne la gars dañoo lekk dañu leen jox Mas Jonkon moo tax ñu noppi ci këram nga ko fekkoon émission sortie moom moo doon bëgg a taal këram. waaw mu ne mu ne nga ne ko gars yi dañoo dem mu ne lañ leen a jox mos jonkon nga ne ko lan may mos jonkon mu ne la ab tàngale bu ñuy seexal xale. <laughs> mu noppi boo demee na nga def retour sa émission. moom lañ ko mosal moom bu rëy lañ ko jox sax. <laughs> mag kay lu ko teree reer lu ne reer. waaw mi ngi noonu nga bañ a jaay sa ngor. xam nga tey ji bu fekkee da ngay wax dara ne duma ko def. Mm. moo tax léegi xale yi tuddee seen caméra yi xomal vaar. xam nga léeg nit wax dara ba pare fàtte ci ay jamono ne wax na ko. Mm-hmm. mu jékki-jékki waxul leneen rek gars yi andil ko vaar bi <laughs> mu ne ndeke ma ma ma lakkoon bi gi. loolu mooy moo tax lépp lu nit di wax rek. waa mais ñooñu tam tey am na ci ñoom dëgg bi ñu xëyee. mais am na ci ñoom dëgg. mais ñii mënul ci am am mënul am ci ñoom dëgg. parce que yow wóor na la ne ñii itam duñ pare mujj ci. jamais kii connaît Maître Madické mm-hmm. kii connaît Omar Sarr. du du kii euh, Maître Sall. Maître Amadou Sall di banlieusard comme ñun ñooñu ñooñu du ñu classe du genre boobu. ak lan lañ fi jàppale Macky Sall Macky Sall jeexal na mandaam jeex na daanaka moom mu ngi ci dernier mandat. sa dépend. ça dépend ci lan. ci constitution bi. ba ci lan en constitution daal marinier la bu la neexee nga def ma ne. moom moom xam na ne carrément mandat de la kenn waxu sept ans waaye su paree day dem Macky Sall dama ni la. su hmm. paree day dem du dëgg. loolu laa lay conseil monsieur le président soo paree demal. ñu ne wër ñëpp gis nga ne carrément ne daaw ñu la wax dëgg ba élection yii ah làmbaay ñaawoon na ba gis nañ ko ci remaniement bi mm. ay homme de confiance am ñoom ñoom ñëpp da a sàdd ca kanaal ba. làmbaay nan la ñaawee te moom yow xoolal moom xam na ne carrément que ne gars yi liggéeyuñu ko waay. Ah, mais mais am na ko rek. am na ko yàlla jox na ko ko yàlla na yéen bi oyof ci moom. ba mu accomplir mission bi nga xam te ak yéen bi mu am ci sénégalais yi moom lañ koy ñaanal. Mhm. parce que tamit mënuñu nekk opposant rek di contester chaque jour ñuy wax chaque jour on parle de politique 24 sur 24 300 si at bi yëpp ñuy wax ñuy wax ci politique pour lan ah xam nga li am mooy bu ñu waxee dialogue. Mhm. nañu ñëw ñu dialogue ànd liggéey dëkk bi suñu demee ba élection jub si ñoom ñëpp ku ci neex mu dem Abdoulaye Wade a ngi nii kan moo ko dàqoon opposé jamono Senghor. Abdou Diouf ba ci Abdou Diouf. Mhm. mais bu ñu passé élection da koy woon na ko ah grand cas ñu toog ñu waxtaan ñu liggéey si dëkk bi ñaata yoon la dugg ci gouvernement ci Abdou Diouf. Mhm. ah waaw tey ji moom mu def loolu pare di di tere ñu Omar Sarr ñu dialogue mais dialogue ba moo andi exil ba nga xam ne dëgg yëf yaa ngi fii ñuy ñuy fekke. waa exilé boobu noonu te doonoon fi candidat ngeen ko défendre fu nekk. tey jii ñib siwul te ba tey jii gisaguma mun ne cëpp ci réew mi ñu koy tudd te euh, Rwanda muy weddi ñu koy tudd feneen ak feneen muy weddi kooku nag kaa am nag. man na li ma koy xamoon ndax mu ngi may dégg. Hmm. ku bëgg akara da ngay ñame kaani. munoo nekk candidat boo xamante ne comme ni ko gars yi di waxee whatsapp ngay waxee ak nit ñi <laughs> ah wala di tànn ñi lay neex ngay wax ak ñoom parti bi day gën a suux dong. c'est la vérité parce que nit ñi tamit kenn moomu leen ah bu ñu maaree dañuy dem feneen. parce que tamit ñu fay nekk di naan ay di di dem di marche di naan ay lacrymogène def lu nekk pour benn nit alors ko nit kooku ba léegi mënuñu koo teg bët ki ngay jàppale tamit day ñëw taxaw ne carrément man maa bëgg nañ leen xeex pour jëli siège bii mais toog fa nga toog rek allo fu ngeen toll nu yëf yi def doxaleen nii di téléguidé man man kenn du ma téléguidé de. non non xam naa nag kim jiital dina ko ko mënal muy Baara Gaye. waaw Baara Gaye c'est un frère mënal ko ko nag. c'est un frère. waaye olof Njaay da daan wax ni gone du fees gëléem maanaam wëlbati baa koy jaaxal du dëgg baara gay bu la ma koy conseil mooy na dem ci nijaayam yii fexe ñoom ni ñu ñëwaate ci parti bi na dem tàggoo tàggu Ablaye Wade ne ko man dama gis sama bâton de pèlerin fexe sama sama baay ma dikkee ñaa ñëw fexe sama nijaay Omar Sarr ñëw ay tant hmm. ñi fi taxaw tey ji di di leen ŋàññ am na fu ñu jaar ak Omar Sarr am na fu ñu ak ma dikkee ñaa nit du sakk jëf man de ñooñu ma lim ñi mosuñu jaar ak man fenn. mais je sais très bien que ni damay dégg am na fu ñu ak ñoom tey jii ñooñu ñooy taxaw ci télé yi ak rajo di leen di leen kii te ala ko ñooñu am na ñoo xam ne boo demee seen commune ñaari Ndiaga Ndiaye sax mënuñu ko remplir après il se proclame des responsables. déet moom nag am na base ndax maire la. kan la Baara. non Baara kay ko kooku kooku kenn kenn kenn werantew ko il est il est MS. Mhm. yëmbul bëgg nañ ko wax dëgg lu ma lu ma teg sama bët la mais dama koy yedd ne ko carrément na dem gis nijaayam yooyu ci télé yi laa koy waxee demal nga gis seen nijaay yooyu sëñ papa yooyu demal toog ak ñoom fexe ñoom nu ñu ñëwaatee sa ñoom bañu ñu nga jiite. du dëgg ndax ku sa laax nga ak say kook mais dama nga toog ak ñoom. loolu la responsable war a incarner loolu la responsable war a def bu ñu la joxee mbir nga bokkook ñëpp da ngay da nga am esprit de rassembleur. fexewaat ñoo ñëpp toog ñu dem à la conquête. PDS est nekkul sabar bu tas ci ni ma ko gisee waaw bu continuer nii rek mooy raw sabar sabar bu tas. Hmm. comme ni xam ma ràcc lañ koy wax xam bu continuer nii. Hmm. mooy raw tax sabar bu tas. mag ba mat naa ba ci réew. man je ci suis pour ñoom met ma dikkee ñaar di dem encore une fois ñoom Omar Sarr ñu leen di léser ñoom ñëpp ñoom ñëpp nañu leen woowaat ñëw est-ce que dégg nga maire Wara Sarr wax ci. doo ko ci dégg mu nga toog fu mu toog munu ko wax nii mais am na lu ko métti parce que boo fekkente da ngaa tàmm di ànd ak say say càmmiñ di xaru di xeex nga gesu gisutoo ñoo ñëpp ça fait mal des na tuuti de bu gersoo dootul gisati compagnon wala bu yàggee bu yàggee fu mu mujjee toog këram te gaynde la moo tax ñoo ñëpp fu mu toll nii na leen na leen baara ngay dem gisi toog ak ñoom xale il faut mag di ko gunge bu ko gungewul day day day dugg ci dëgg sërax te bu fa duggee dootul gaaw génn. mais xaxarante bi am ci entre libéraux na xanaa looloo gën a métti gën a ñaaw. waaw loolu yëpp ge ne rayante gi ci réseaux sociaux yi. moom waaw xam nga candidat réseaux sociaux moom man dama man ci duma ci sori. Mhm. xam nga toog ci réseaux sociaux yi di wax sénégalais yi quatre-vingt-dix pour cent c'est des c'est des c'est des ignorants. Mhm, loolu nga foog. mais ma ne. Mhm. sama sama nijaay ba ca kaw ga. whatsapp ñu ngi koy taxul nga falu taxul nga falu whatsapp yi boo demoon tey jii quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais yenn ca fonga fonga lemi mhm. ay portable yu simple la ñu comme sama bos bi xamuñu whatsapp yow da gëj ngaa tukki waaw yow yaa ngi ci yëmbal maa ngi yëmbal waaye boo génnee di xam ne àll ba ñoo la gën a whatsapp bi falul whatsapp falul mm. folliwul lu dëgg ba ci yëmbal bii am na ñoo xamante ne c'est des yoo xam ne ay candidats réseaux sociaux lañu lu ñu def rek publier ko yaakaar ne mairie bi dañ leen koy jox. Hmm. ñu ngi toog seen i kër di ma seetaan. yow ndax candidat nga pour mairie bi. mairie bi ah, ku ñëpp xam fa nga jëm seen yaakaar mais ki may àndal. du jënd di ragal géej. non jënd warul ragal géej bu ko ragalee yàqu waaye nag <laughs> ki ma war a àndal pour dem à la conquête. mu mm. dégg maa ngi koy dégg te réeróo ñu ñu ngi déggante. ah da nga a langaamu daal. langaamu ma man duma man duma langaam dañuy langaamu sama kaw. Mm. man maay romb di rëccu yéexati ñàkk. nga ma. waaw waaw yëmbal xam <laughs> jeex na. <laughs> mën ngaa tàggatoo. waaw di gërëmaat waa Sénégal yëpp. Mm-hmm. di kontaan tey jii ci li ngeen ñëw fii ci kër gi sama kër. Mm-hmm. fekk si ma fi ak sama pap sama nijaay ak sama acteurs yi nga àndal ñoom ñëpp. Mm-hmm. di gërëm waa Sénégal yëpp. di gërëm sama mbokku njaago yi bi nga cosaanu mooy ba kokoru yi. Mm-hmm. di leen gërëm di gërëm tamit di nuyu aussi tamit waa ASEMI. di gërëm moom tamit yow Ndeye Fatou ak sa caméraman bi xaritu Lamine Samba. Mm-hmm. di ko gërëm. di <laughs> waaw di gërëm aussi tamit euh, Ndeye Fatou. journaliste banlieue bii. seen patron de presse yi war nañ leen a jàppale son nañ lool. kooku moom dama koy xam mu ko dégg ku ma ci mere yaa xam. dañuy daw fu ne ba seen dàll yi toj. dañuy daw fu ne ba seen caméra seen caméra di daanu amuñ sax moyen de locomotion di leen gërëm parce que tey ji fu luy toll tey ji ñoom dañ cay contribuer bu baax. commencé ko ci Tego Semedo Najib Sagna Vieux Père Ndiaye Salou Sow euh, kii Thiam Moussa Thiam. ñoom euh, Amary Gueye ñoom Tidiane Younou Sarr ñoom ñoo ñëpp mhm. Alassane Anne ñoo ñëpp dem leen di gërëm leen sant foo mhm. Fodé Massaré parce que ñoom tey jii bokk nañ ci ñi ma defar parce que suñu wax rek bu doon yem ci yëmbal rek du àggul ci autorité yi solution du am di gërëm tamit waa yëmbal yëpp fàttewu mooy tamit sama nijaay mhm. chef de village di gërëm tamit commissaire yi bu yëmbal Ibrahima Diouf alias Jack Bauer yëmbal a ngi nelaw ba yandoor di leen gërëm waa commissariat yëmbal bu baax a baax a baax a baax parce que xale la boo xamante ne wax dëgg yàlla ah rëccuwuñu luñ ko fi doon àndee moom ak adjoint mhm. le commissaire Faye et di gërëm sama sama xarit yi fi toog yëpp mhm. ak délégué yi ñoom ñëpp maa ngi di gërëm di sant di jéggul tamit ci kàddu yi di at encore une fois sama papa bi toog mhm. alaaji Serigne Niang di ma di di di gërëm sama yaay euh, Marie Thérèse Gomis mhm. sama vingt Vincent Gomis mhm. ak euh, maire Diama mhm. ak maire Aïda Faye ah di nga lim set cinquante deux quartiers yëmbal yëpp Chéri Souleymane <laughs> mais ñooñu dañ mënuñu ñàkk ñu leen tudd. jërëjëf ñu lay jaajëfal parce que nga bu baax merci. waaw jërëjëf ñuy gërëm suñu auditeur ak téléspectateur di doon teewlu seen émission sortie gërëm sama xalifa El Hadj Salif duñu fàtte oustaz Assane Diouf Dieyna Dabo Ba ak Pape Maguette Gueye di sant di gërëm bu baax Ndumbe madame Ndiaye borom salon de coiffure Fatou Thiaw laay nekk fële ca Nord Foire ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko gërëm ci coiffure bi jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah.